man la maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñu fekkee lépp man la salaatu Hann maa ngi liggéey fii si projet développement communautaire bi si dantes bi di kontaan lii ñu def mu rafet lool ndax xam naa ni man c'est la première fois ma fekke lii maa ngi kontaan naa nag di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal fu ngeen bëgg a àgg yàlla na fa àgg si barke Seydina Limaamu. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di gërëm ñépp ci seen teewaay aussi man maa ngi tudd Tata mbay Mbaye maa ngi nekk fii si association développement communautaire Seyna Issa nekk ci SEDIB bi maa yor petite section bi waaw. waaw boo gisee tey ñun ñëpp ñu ngi fi fekk ñu sol nuroole teew. booloo mooy doole te comme ñun ñëpp ñi nga fi gis ñoo bokk fii ñu nekk di association bi ñuy feete tey journée de la femme ndax àdduna sépp ñoo koy feete kon du yoon ñun ñuy dem tooge ne ñun looloo waral ñu dajaloo fi tey ñu woo ñëpp ñi fi nekk ku nekk nga teew pour feete journée bi neex na torop nag waxtaan bi ak échange yi ñu fi def rekk dafa neex ah journée de la femme moom li ma ci wax rekk mooy kontaan si neex na ni ñu jël jigéen jagleel ko benn bis ñu moom ko lu jaadu la lu war la ndax jigéen mooy yaay mooy lépp daal ndax bu dul woon jigéen tamit dara mën naa ne lu bari du sotti lu ñu jël nag bis bi jagleel ñu ko du chance mérite la waaw léegi nag di wax góor ñi ñoom tamit gàcce ngaalaama ndax dooleel nañ jigéen ñu leen di ñaan rek ñu gën ñu dooleel gën ñu jàppale toppatoo sàmm aar yor bu rafet macha allah ñoom daal desuñu gannaaw tamit ndax bu ñoom bu nu jàppalewul tamit ñun duñu dem ñun kese waa ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant suñu papa yi suñu boroom kër yi suñu freer yi ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. waa di jaajëfal ñépp ci teewaay bi kon lii moom kontaan naa ci torop torop torop ñuy ñaan tamit année bii di ñëw mu gën a yaatu ñépp dugg am na ñu teewul xëj na yéeg dañoo yéex a yéeg walla yéguñu am na ñu bokk am na ñu bokkul waaye du seen coobare jaam ak pexeem yàlla ak dogalam bëgg nañ bu déwénee incha allah mu gën a yaatu ba waa Lou'Bess TV yéen it ngeen bokk ci niroole incha allah rabbi. asalaamaaleykum. auzu billahi mina shaytaani rajim. lay lay lay Mamadou Makhtar laay wax ndaxte ñu ngi ci Cambérène mooy sunu fief. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Seydina Mouhamadou maxtar laay xalifatul am di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér te yàlla na yàlla oyofal yenam di nuyu it lu bayti bi yëpp di ko teg ci loxo Seydina laay di nuyu sunu président bi nga xam ni mooy tonton Seyna Diop di ko nuyu di ko sargal di nuyu Abdou Aziz Fall mi nga xam ni moo yore lu Lou'Bess TV ba pare di nuyu sunu secretaire général di nuyu Mamadou Diak mi sunu directeur sunu MOPCOM di nuyu l'infatigable Khalifa Sène moom mi nga xam ni mooy sunu coordonnateur di xaritu jigéen ñi di nuyu section santé ñi nga xam ni ñooy waa cabinet salaatu nga fa sama grande sœur docteur Marie Penda ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñuy nag ñi nga xam ni it ñoom ñoo nekk fii ci séddu bi nekk ci garderie bi muy Mantou Elisabeth ak Ndey euh, Ndey Maguette Ndey Marème Ndey Marème ñu ngi leen di nuyu di leen sargal ci bis bi tourné nan na waat nag ci sama relais yii nag macha nuyu Ndeye Baye moom mi nga xam ne mooy sunu femme de charge macha allah di xale bu yaru moom itam ñëw nag ci sunu relais yii nag maa ngi leen di nuyu yéen ku nekk sa tur ak sa sant te jox leen samay loxoy xol te naan leen lay lay lay Mamadou Makhtar te xam ni bis bii nag tey bisub sant yàlla la ci ñun jigéen ñu ngi sant yàlla bu baax di dellu di ko santaat di ko santaat moom mi nga xamee ni ñu ngi koy fekke ay ati ati at te bi ñu yeewoo dara jotuñu bañ ko mën a feetewaat tey ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax te naan at mi yàlla bu mu nekk sunu mujj 8 mars te daje bi ñu daje yal na yàlla def nit mu boole ko ci daje yi nga xam ni moom la nangu yàlla defal ñu fi fasaaxa defal ñu ci tawfeex di ñaan yal na ñu yàlla taxaw jigéen nag moom li ñu wax rek jigéen dafa rëy balaa may dugg foofu di nuyuwaati sunu bàjjenu gox aram ñang mi nga xam ne moo nekk ci waañ bi macha allah une femme très brave très dynamique waaw une femme très brave très dynamique macha allah di ko moom itam ci staff bi la bokk. di wax ni journée de la femme pour man chaque jour que jëfee rek fête de la femme la. du 1er janvier jusqu'au 31 décembre chaque jour rek fête de la femme la pour man mais ne dafa am jour spécial ba nga xam ne dañ ci jagleel bi nga xam ne dafa am spécificité ñu ni c'est le 8 mars bon 8 mars boobu bien vrai que jour yëpp journée de la femme la mais 8 mars moom la ñu jox jigéen ñi nag nga xamee ni moom normalement dafa waroon nekk férié ba ñoo xam ne jigéen ñoo ko moom parce que dañ ni une société sans femme na peut pas une société kër it su fa jigéen nekkulee du am du ko du dem du dem ndaxte góor mooy fàq kër mais jigéen mooy yor kër jigéen mooy yor mooy mooy jur mooy produire mooy yar mooy tette mooy nourrir parce que góor gi mi ngi indi pour nourrir mais jigéen ji mooy togg pour jox doomam mooy yar doom ji moom mooy wan doom ji tey jii tey xale bañ nan ko nga xam ni dañ naan kii kan mooy yaayam nii la war a mën a mel kii kan mooy yaayam ak cim bon jigéen lu am solo la ci société bon gàcce ngaa ma sunu yaay yi tey suñu demee ba toog fii tey ñun ñii tey ñu ràññee ñu tey suñu yaay yeeg liggéey moo tax ñu am ko dañ ni liggéeyu ndey añub doom waaye ñun ma dellu ci waat tuuti it liñ naan liggéey ndey di nga gis nag yaay du liggéey ba sonn te malheureusement du am fruit yi parce que léegi influence extérieure bi yàq na suñuy doom ba nga xamee nekk na une influence néfaste très négative ci sa éducation suñu doom yi parce que da ngay yar si kër gi ba sonn léeg ñëw nii mi internet bi média yi sax laay wax la haute technologie ñëw na am na lu bari lu mu façonné ci xale yi li xale yi amul fitu def ko ci biir kër gi rek lu fit da xale yi amul fitu wax def ko ci kër gi rek suñu génnee ci mbedd mi nañ ko def parce que technologie bi moo leen ciy poussé bon yàlla nañu yàlla yaral suñu njaboot na nañu yàlla yaral suñu njaboot dellu teg loxo ci njaboot ndaxte yàlla mooy sàmm mais ku mu sàmm nga sàmmale bon nag yàlla nañu yàlla sàmmal yàlla nañu yàlla taxawu te lu Lou'Bess TV it ñu ngi ñaanal eh, Abdou Aziz Fall mi nga xam ne mooy sunu SG nekk sunu doom li vision bi mu am gis nañ ko parce que ñu ngi koy suivre man je le suis mu ngi koy suivre bu baax a baax vision bi mu am gis nañ ko par rapport ak. Eh, partenariat yi mu fi def au niveau de l'extérieur yooyu yëpp maa ngi koy suivre yàlla na doon jiglaayam te yàlla na doon muuram su ñëwee it yàlla na doon wërsëgam ci barke Baye Layor may maam Seydi di leen ñaanal yéen ñi fiy liggéey yàlla na leen yàlla ño ñoŋal yàlla na yàlla ñoŋal li ngeen fii def yàlla na ngeen ci dem ba gis ci seen bopp ba ngeen xam di ngeen romb fii télé bi dina romb fii mu nekk yeneen dans d'autres dans d'autres sphères te ça peut se faire incha allah parce que gis nañ démarche bi muy yor di ñaan ci sunu Sénégal yi nag yàlla nañu yàlla defal jàpp. parce que ñu ngi jub si un événement ba nga xamee ni c'est un événement ba nga xamee ni dafa am ambiguïté parce que ambiguïté bi nan laa ko mën a waxee élection présidentielle ak yi fi xew yépp tey jii tey enjeu yi dafa bari lu nekk mi ngi fi tey kuy yaay kuy jigéen rek laa la wax kuy responsable rek sa fi dalul parce que yaa ngi naan campagne bi su commencé élection yi su commencé ba nanu ñaax suñu doom yi ñun étant maire étant responsable nanu gën a xam nan la ñuy waxtaan ak suñu doom suñu njaboot njaboot nag waxtaan ak moom éducation li ci jëkk c'est la communication na nga fexe ba sa doom ñeme la di waxtaan ak yow su gisee lu ko jaaxal ci mbedd bi ñëw osé ñëw toog mën a waxtaan ak yow sujet tabu bu mu am ci diggante parent ak ak ak doom parce que sujet tabou su amee rek soo gisee yu bari yu am nii tey jii yu ci bari dañ ko jël ni ga dañ ko diaboliser parce que soo waxee danga nga naan kii nan la mën a waxee lii yaayam nan la mën a waxee lii papam te amaana loolu muy waxanteeg yaayam di ko waxanteeg papam loolu mooy koy gindi ba nga xamee ni tey jii tey xale bi tey jii tey dina mën a am une certaine ouverture d'esprit ba nga xamee ni fu mu dem dina xam nan lay composer nit ñi kon nag yàlla na yàlla defal jàmm di ñaanal nag sunu projet bii yàlla na ci yàlla teg loxoom docteur Marie merci beaucoup gis na li ngay def ci askan wi ndaxte ñun askan wi rek moo ñu ñor gis na li ngay def nag ci Cambérène waaw Penda yow itam gis nañ leen bu baax ni ngeen di def ni ngeen di lijjanti parce que su leen neexoon ni bokk leen Cambérène da ngeen ñëw di daan seen doole mais fii mooy seen seconde famille mën naa wax ni c'est la première famille parce que du matin au soir yéen a ngi fi ak ñun ñu ngi kaf ak yéen ñu ngi mel ni ñu ngi bokk ndey ak baay man nag je suis la présidente du réseau des AVEC Suxali de Cambérène ñii samay relais lan xalifa sama coordonnateur la waaye nag sant nañ leen gërëm nañ leen bu déwénee nag ñëpp ciy bokk. incha allah te di l'ai tout à l'heure fële au niveau de la mairie commune ba ma fa jaaree nee naa leen berberu ku nekk sa waañ amatu fi parce que ñun on ñun on prône pour l'unicité bon danu comme man Seyna Issa alayhi salaatu wasalaam ci union la ko defoon si le social. dañuy bennoo ndax xol yi gën a tàppe ñuy gën di bëggante parce que fii il n'y a que l'amour l'amour est mieux que la richesse est mieux que que le succès fii amour rek moo fi am bëggante ndaxte soo bëggantee lépp ngi ci biir richesse ngi ci succès mi ngi ci bon yàlla na nu yàlla defal jaam ngeen baal ma ak waaw effectivement foofu dinaa ci wax tuuti rek te li ma ciy wax moom mooy lan nanu xoolaat njaboot gi njaboot gi rek lañuy ñuy xoolaat parce que dañ ni lu dul diine du teggin te ñun bàyyi lay alayhi salaatu wasalaam lañu gëm ndaxte moom la démb moom ma tey waxul ni je suis un autre prophète dafa ni je suis je suis Mohammed et je la le Mahdi mooma démb mooma tey Seydina Isa alayhi salaatu ñëw nekk la réincarnation de Jésus-Christ daal ni man a Isa man may Seydina Isa Isa roowalaay moo tax ñuy wax Seydina issa bon ñun am na la nga xamee ni tey jii mi ngi ci ñun te mag ñi bi ñu fi nekkoon démb amuñu woon amuñu woon wanag wu ñuy fat lépp ci biti leen ko daan teg bon nag ñun ñii di yaay ñun ñii di kilifa yi nañu yaraat njaboot gi te li ma waxoon léegi nii gis nga les les ondes extérieures suñu ñëwee sa kër tey jii tey mu ñëw nii tey ni ce sont des corps étrangers su ñëwee sa kër yow mii yaay war nga xam ni sa doom jii am na lu rax si moom wala am lu raxu si moom man sama yaay daan na wax naan paix oh, à son âme yàlla na ko yàlla yërëm yóbbu ko ci àjjanay illa yii na ak ñam fa fekk ak ña ko fa fekk ñëpp di ñaanal ñëpp nag daan na wax naan ku jur doom xam nga li nekk si moom sa doom su baaxee xam nga su bonee xam na man nag ci doctrine boobu laay dox bon ñun nanu xoolaat xale yi amaana ñiy sàcc ci doomu dëkk bi la amaana ñiy sàcc duñu doomu ci dëkk bi mais dañu ñëw infiltrer doomu dëkk bi mais xale yi su ñu yemoon fa ñu waroon yem xool li fi seen bàyyi bàyyi seen maam yi bàyyi ko fi ñu ko daan doxale ci dëkk bi amaana ñun ku ñu rax nañ ko xam waaye nag am na ñi nga xam ne ñu ngi bay seen waar xanaa ñu gën a dolliwaat gën a dolli gën a am vigilance gën a redoubler d'effort pour vigilance xool nan la ñuy waxtaanee nit ñi ba nga xam ne sensibilisation dina am ñu gën a mën a taxaw ci loolu salaam waaw je crois que loolu jeex na waaw je vous remercie toutes merci bien c'est gentil